sur 1295 tests réalisés, 40 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 10 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias et 29 issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Tivaouane 4, Mamel 2, Yoff 2, Castor 1, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Médina Ouest Foire 1 Richard Toll 1 Saraya 1 Scat Urbam 1 Tamba 1 Touba 1 et zone de captage 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 13 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce samedi 26 septembre 2020. l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 909 cas ont été déclarés positifs, dont 12 113 guéris, 308 décédés et donc 2487 patients sous traitement ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent test yi ñu def ñeent fukk ñoo ci positif ci ñeent fukk ñooñu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro am nañ ci benn kaa bi jóge bitim réew mu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu jaas am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ñi xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Thiès am ci ñeent Tivaouane am ci ñeent Mamel am ci ñaar Castor am ci benn Dakar Plateau am benn Diamniadio am benn Diourbel am benn Grand Yoff benn Guédiawaye am benn Kédougou am benn Liberté 6 am benn Mbao am benn Médina am ci benn Ouest Foire am ci benn Richard Toll am benn Saraya am benn Scat Urbam am benn Tamba am benn Touba am benn ak zone de captage tamit am na benn juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar si malade juróom-ñett fukk ak juróom si malade yi ñu entre woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fukk ak ñett ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb gaaw ñaar fukki fan ak juróom ak juróom benn ci weer septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar ak téeméer ak fukk ñett wér nañ si ñett téeméer ak juróom-ñett ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi